neexee. ay suma xol bi neexul. suma xol bi neexul tey. Hmm, neexul tey. ah because xam nga lu du neex. parce que ñoom ñoom ñu ngi xëy amuñu lu ñu teg ci noppa nit ñi. xoolee ñu di lijjanti Gàmbi. nit ñaa ngi xiif soo ñu wax ci loolu. ñu ne ay góor gi mu ngi nelaw. xëy démba war nañ benn photo. ma gëma jël suma loxo yi ma sapp ko. nii mel na koo xam ne dangay téye leket. magguma ñu ne dama nelaw ah. démba ñu génne beneen boo xam ne soo bi ko eh, eh. ñoom léegi mën nañu toppa lu maa def ñu génne ko ay ñoom mën nañu campagnal de xëy xanaa ñoom mu ñu lijjanti seen boppa lu leen li bara xamal mooy man daabo duma dellu ginnaaw tey duma dellu ginnaaw ola waaye léegi su nelu woon ma taxaw ñu ne xool leen mu ngi ñu li ñu bëgg a ah? xëy boo nelawee ñu ne mu nelaw nga xujaaral ñu ne mu ngi xujaaral xëy nga tëdd ñu ne mu ngi tëdd nga taxaw ñu ne lu muy taxaw kon ñoom lu ñu bugga ah? xëy nañu wax ci réew mi moo gën ñu wax sumay nelaw yi ah, man suma nelaw yi du ma gémentoo du ma nelaw ah man suma gémentoo dama nelaw waaye xam nga man nelaw dama ko xam ci waxtu nelaw uh-huh. waaye moom day nelaw sa taxaw di wax uh-huh. uh-huh. day taxaw di wax dañuy génne vidéo rek mm. xool leen bi xool gis ngeen ko kon ku nelaw de moom mooy nelaw ba xaram nii moom basam dafay yëngu man foto la kon eh, eh dañu ma dugal benn ma duut leen benn ba ñu ma ci ba ku nekkam nu ngay fanaanoo ma wone ko waaw parce que yeb dañoo yebaate dañoo yebaate ma ñëw xay ma ñëw soo gisee ma wax loolu ah. because dama leen di wax ne lu ñu def rek man pare naa pour def ko xëy magam jëm bu toog këram di nelaw ah amul ne because est-ce que awuma droit nelaw ah. kon lan mooy problème bi ah. hay ay baaw dafay nelaw góor gi dafa jeexal dafay xaran éé eh, bi ma leen wan nii ñoom xam nañu kan la kii toog nii di nelaw ba xaran because boo koo gisee di ngeen xam kan mooy nelawkat bi hay loolu lu ndaw loolu ay because waaw góor gi dafay nelaw dafa sona dafa war a dem ku ku sona da nga nelaw ku sona da nga nelaw boo ne kan mus nga gis koo xam ne dafa judd di taxaw di xoolee ah, ah. Ah, gardien bi def loolu métier am sax munu ko xëy xoole rek xoole munul nekka te ki la daxa moo la daxa nelaw parce que sa bëri dafa def xujju sept heures nga yow nga def xujju huit heures nga def xujju midi nga def xujju takkusaan nga def xujju gee nga def xujju timis nga def xujju minuit nga def xujju boo nelawee kenn du yeewu xëy de loolu munta ne ñoom dañoo ñàkk a xorom man because dootuma leen sax tontu ci loolu wone nañu photo man wone naa vidéo xëy jeex na waaye xam nga lu leen métti li nga xam ne dama ne du fi am Yaya Mburu mhm. Mhm. Mhm. hey loolu leen métti waaw